ci nettali téeméer bi ak juróom ñaar fukk ak juróom am na mag mu wax ni am na sëriñ Tuubaa xaadalawo loo maxtaara lawo ci ci lucc mis mu tari fatiha ak inaa ansalnaahu ca rakkaa bu njëkk ba ba ca def fatiha ak ililaafi quraysin nee na itam ànd naag moom ci julli gee mu tari fatiha ak isaa zulsilati yii ci nettali téeméer bi ak juróom ñaar fukk ak juróom benn nee na an moom kooku nee na ànd naag sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtarloo ci jullit suba mu tari lam yàkkunil lësina kafaroo ginnaaw fatiha ca rakkaa bu njëkk ba ba ca des fatiha ak kaafiroona ba ñu sëlmalee ñaari rakkaa yu njëkk ya së waxtu suuf xëy na ñaari rakkaay fajar la lay xëy na ñaari rakkaay fajar lay wax sëriñ bi xaadalaw la maxtarloo ni ko Mouhamadou Amin laaj baax na lool waaye laaj ku xam moo gën laaj baax na lool waaye laaj ku xam moo gën ñaari raakaay fajar ku ko man bu njëkk bi dee ci jàng faatiha sara ku koy def da mucc ci ay yéefar ak luy lore wér na lool sëriñ bi nag yàkku ni li tax mu koy jàng yàllaa xam waaye ku xool xam ni am na ak nuroo lool ak diggam ak tubaab bi naka noonu xul yaay kaafan laa bu maa tax bu doon ku ko xool xam ni am na ak nuroo ak diggam ak tubaab bi sëriñ bi dañuy tegtal baaxul loola ba tey sëriñ Mouhamadou Lamine radiyallahu anhu bii muy laaj sëriñ bi day jubloo jariñ boppam ak ñi mu àndal ndax sëriñ bi ñu bëri dañu koo xawoon a wagar ba duñ ko ñu nee laaj yu bëri wax nañu sëriñ Basiru ak moom mii bokkoon nañu ci ñu ko daan laaj yu bëri